Ousmane Doum discipline Police partout, police partout, police partout, police partout. partout, partout, partout, police partout, justice nulle part, police partout, justice nulle part, police partout. Police partout, justice nulle part, police partout, justice nulle part, police partout.

Police partout! Police partout! Police partout! moo tax ko defee non suñ ko defee xam nga Sénégal soo waxee di benn affaire pendant six mois yaakaar ni donc débat boobu la ñu bëgg ñu ku nekk ñu war bañ sanale commencé c'est possible buñ ko faale buñ ko xam moom ay ngi ko ñu ngi koy nan ko waxee encore ñu ngi envoyé ay benn def naa ko bii mooy mujjee bi donc ko